billahi samin alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bokki julit yi bokki taalibay murit yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziyaara ci weeru tedd bii di muharam rawatina bisu tedd yi ñu jóge rawatina barab bu tedd bi ñu bokk nekk muy Masaalikul Jinaan nuyoo bi ak ziar bi maa ngi ciy jiital fadilatu cheikh Mouhamadou Mountakha ibnu cheikh Abdoul Bachir xalif général des Mourides ak mbooleem rakam yépp ak mboolem taalibe murid yépp ci biir réew mi ak bitim réew nuyoo bi ak ziar bi nag ñu teg ko ci loxol suñu jëwriñ alhaaji Mbàkke yu fay représentant xalif général de Mouride ci ndakaaru ak li ko wër yëpp muy di nuyu nag waa Touba TV te Cheikh Balla Samb nekk la koordinateur général Jibril Ndaw ak mboolem ñu mu ko àndal caméraman yëpp bàyyiwuñu kenn di nuyu bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal diwaanu Masaalikul Jinaan mu di Serigne Bassirou Diagne Zamzam 2 Serigne Sylla Baye Fall Serigne Babacar Mbaye Serigne Mbaye Ndiaye Sarnosi Balla Ñing ak Omar Faye mi nga xamante ni ñoo yore lépp lu jëm ci finance bi Maysa Sey Alaji Yatma Gueye sécurité bi Alioune Niang Komana Diop ak Jibril ñoom ñëpp ñooy taxaw taxawaay bu rafet ci biir liggéeyu Massalikul Jinaan fàttewuma jigéen ñi mu mel ni ajari ajaratu Gàmmu Diop ak ki nga xamante ni mooy aji euh, Famalo ay ajaratu aram kebe ayda ajaratu ayda dem ajaratu kura njaay ajaratu faat mbakke aaj ajaratu seyna bu mbow ajaratu mbenn jóob ak ajaratu ab sa kenn seen liggéey nag seen taxawaay mat sëkk ci liggéey boobu di Masaalikul Jinaan yàlla dogal nag tey may nuyu mbooleem marché yi nag marché ji Alaji Talla Cubb jàmbaar ji nga xamante ni moo ko piloté te waxtu dikkee rek diwaan bi xam ni ñëw na di nuyu nag marché HLM ajaratu Faat Mbàkke Ñas jàmbaari lislaam jooju bëgg loolu Alaaji Fàllu Mbàkke ah marché Sandaga may nuyu nag Serigne Souhaï bu joxaanee waaye bu ñu nee Sandaga rek xel yëpp day dem ci Alaaji Njaga Gay Touba Sandaga di nuyu nag mbooleem ñi nga xamante ni ay taalibe lañu ay auditeur lañu waaye nag fàttaliwuma nag fàttewuma euh, Serigne Moustapha Massamba Mbàkke mi nga xamante ni mooy xalifa Cheikh Massamba Serigne Mamoor Mbàkke Massamba yor kàddu kër gi sëriñ Abdul Xabiir ak seeni doom yépp di nuyu nag bu baax ki nga xamante ni sama bunt la ci kër sëñ Fàllu Mbàkke muy ajaratu may galas lënkoo nag ak rakam ju baax ji yore makaarimul axlaax muy sëriñ Abdul Karim ak mbooleem njabootu sëñ Fàllu gépp di nuyu nag bokki taalibe yi ci biir réew mi ak bitim réew egsi nañ ci suñu émission bi nga xamante ni moom lay tuddee laabirante ak fàttalikonte fa zakir ina fàtti zikra say zakaru man yaxsha yàlla nee na dee leen fàttali fàttali day jariñ ko ragal yàlla léegi nag émission bee passé ñu doon waxtaan ci solidarité gis ngeen li nga xamante ni noonu la amee njëriñ tey nag ma am nag sama invité bu tedd bu mag muy kan muy Serigne Abdou jii Djily sàmm bi nekk Lamp Fall FM nekk Murid Sadikh waaye nag nekk nag ci li ma daan wax ñeenti aay alim la fa tabarakallahu afis la abit la amil la nekk nag ku yaru koo xamante ni boo toogeek moom mu yar la te du yor yar waaye nag nekk nag un ndax lu tax instruction éducation formation dafa mënta ñàkk ci diine ji moom nag mu yor euh, daara joo xamante ni préscolaire la ci yar gone yi ak jàngal leen ak yee leen ba bu ëllëgee ñu amal seen wayjur njëriñ Serigne Abdou Khadir Samb kon nekk nag un très grand conférencier di waxtaan ci diini ji ak ci yoonu murit kon tey moom laa invité ngir dama waxoon émission bi passé ñu nag tey daal. 1441 Serigne Djili la Serigne Muntaka ubbi caabi Masaalikul Jinaan tekki loxol Serigne Touba 1442 mu ubbi jumaay Poroxaan tekki loxol Maam Jaara loolu amul kenn ko xamante ni mas nga koo def ñaanuk Serigne bi moo nangu zuriyatan tayyibatan tu taj tu tu gaddidu naaja nabil Mustafa taj tayidu kon gis nga kon Serigne Muntaka ma tax nag kon yow bala ngaa nuyoo dañ may indil ñaari jumaa yi nga xamante ni jumaa jii di Masaalikul Jinaan di mille quatre cent quarante hmm. mu ubbi ko fa caabi ji teg ci loxol hmm. Xaadimu Rasuul hmm. waaye nag mille quatre cent quarante deux mu jël nag jumaay Poroxaan teg ci loxol Maam Jaara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 di nuyu mboolem ñi nga xamanteni ñom ñoo fi liggéey bàyyiwuñu kenn ko demee ne sëriñ Diop bishri sama xarit waye du nuyu na mboolem nga xamanteni ñoy ñooy télévision bi rawatina émission bu am solo bi nga moy fatalante ak la bi rente muy ñaari baat yo xamanteni yu am solo la ndax non nga ko waxe ci ay bobu suñu borom wax wa zakir in nafaati dhikra fa yadhkuru man yakhsha ne yonte bi naga fatali fàttali su ko defee nag ki nga xamante dafa ragal yàlla moom dana fàttaliku waaye wax na ko tam wa zakir in nafaati dikra sa yazakaru man yaxsha ak wa zakir fi inna dikra tanfaau al muminin na nga fàttali ndax kat fàttali dafay jëriñ ñi nga xamante ne ni ñooy jullit ñi kon mu am solo lool waaye laa biirante tamit yonte bi da wax ne ad diinu an nasiha nee na diine ji lépp lépp laa biirante la kon mu doon lu am solo loo xamante ni macha allahum kon ni nga ko tuddee am ma solo lool su ko defee nag di bëgg nag ci woo gi ma woo fii nga xam ni yow sama baay nga sama xarit nga ndaw waxe nga ko euh, jëfe nga ko nga doon ko am solo nag ci diine lislaam bi yëpp waaye am ko nag euh, ci yoonu murit nekk xakim nga xam ne saa boo waxee rek euh, ñëpp dañ ciy jariñu kon dañ lay ñaanal rek nga yàgg fi loolu tëwér te émission bi nga yàgg koo def ñu yàgg ko ànd ak yow te ñun ñëpp ñu daje ceeg tawféex yi sëriñ Touba. waaw sëriñ Jili jërëjëf tey nag mbokki taalibe yi ci biir réew mi ak ci bitim réew ndax dangeen di xam ni lu ne am na kilifa euh, téere yi téeméeri téere ñeent la waaye alxuraan ay seen kilifa jàkk yi jumaa yi seen kilifa jumaa yi ak jàkk yi kaaba seen kilifa kaabaga mooy seen kilifa alxuraan di kilifay téere yi waaye bis yëpp ak jumaa yi seen kilifa yonent yi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mooy seen kilifa te kon mboolem jàmbaar yi doon liggéey lislaam Cheikh Al Khadim mooy seen kilifa. tey nag danoo jël thème boo xamante ne dama bëgg ñu waxtaane ko muy juma ba bëgg ci nag ñeenti parti sëriñ Jili bëgg naa ñu waxtaan ci atte juma sëriñ Jili bëgg naa ñu waxtaan ci xitma juma sëriñ Jili bëgg naa ñu waxtaan ci ngëneelu juma sëriñ Jili bëgg naa ñu waxtaan ci tegginu juma ak charte juma kon nag lii laa bëggoon ñu waxtaane ko ndax suñu bokki taalibe yi bu sëriñ bi jëlee nag wax dëgg nag ci 1441 ubbi Masaalikul Jinaan muy jumaa Cheikhul Khadim di jumaa joo xamante ni wax naa la ni la ñaari mètre carré rek lañ jëloon ca Kanjel Diop dugal ca sunu jàmbaar ja Khadimul Moustapha tey nag yàlla fay ko soixante mille mètres carrés soixante mille mètres carrés di six hectares cinq cent tey foofa lañu ñu établir jumaa ju mag ji ci Ndakaaru kon bu ñu demee ba ubbi nag jumaa ji mille quatre cent quarante-deux mu ubbi jumaay Porokhane kon gis nga kon ni premier jour ci Muharram bi ko kon sëñ jiili na tey ma bëggoon ñu waxtaan ndax taalibe yëpp nag bàyyi xel juma ndax ka jéggi woon ca dëggi suuróor yi moom la yàlla jox sooroor yi diggante galwaa gabon mm-hmm. juróomi at yi mu tegul cin tegaluñ ko cin mm-hmm. te Moustapha at waxtu ay waay ana rakkay géej gi mm-hmm. ñaar rakkay ndar bërki démb ana tey ñetti guddi ndakaaru ana tey ñaar rakkay géej gi eh, julli juma julli ci géej gi kon noonu rek la koy taxawee kon ma bàyyi la nga waxtaanee tomb bi may jëkk mooy première tomb mooy atte juma atte juma macha allah jërëjëf euh, Serigne Modou Mbaye Samb nga xam ne fi nga daaneel rek foofu laay sos ndax euh, Serigne Touba dafa am ndam lu rëy rëy ci mhm. ñaari jumaa yi ak jumaa yi nga xamante ni moo ko jiitu woon nga xam ne jumaa yi Masaalikul Jinaan dafa am mbóot mu rëy mu ci ne ndax ku ne xam na ni fii mu nekk euh, avenue Cheikh Ahmadou bi ñu ko koy tuddee boobu luy màndargaal lislaam sax amu fi woon nga xamante ne ay commerçant ñoo fi woon ay mécaniciens ak xeet yu demee noonu waaye nag euh, suñu borom mi dara tawul nga xam ne dafa farak sëriñ Tuubaa bi ñu demee ba mu soob ko ci la jël na jumaa ji gën a rëy euh, ci euh, ndakaaru daal di koy def foofu mu nekk ci diggu abonné si Ahmadou Bamba loolu kéemtaan la goo xamante ni yéeme na lool Euh, sëriñ bi ni nga ko waxee mu ubbi ko ci 1441. Mhm. nga xamante ni keroog ubbite gi ku ne gis na. Mhm. ni mu yéemoo ay mhm. mbir yu bëree bëri xew ci nga xam ne ku ko fa teewoon rek. wala nga seetaan image yi di nga xam ne sëriñ Tuubaa suñu borom nangul na ko. sëriñ Tuubaa suñu borom fay na ko. waaye sëriñ Tuubaa suñu borom far na ko. nga xam ne loolu moom du li ñuy nattable. waaye nag ki ko ubbi nag mu doon ko yéeme muy sëriñ Muntaxa. nga xam ne moo nekk eh, ña ñetteelu eh, xalifa borom waaye doon nag jaamukatu yàlla doon koo xamante ni boo ne ko jàkk rek da nga xam ne nit yàlla piir mi ngi nii nga xam ne dañ koy ñaanal nag mu yàgg fi loolu te wér waaye bi ñu diggee ci at mi ci topp ren ni nga ko waxee 1442 bis ba ca njëkk mu ubbiwaat jumaay masaalikul eh, jumaay eh, poroxaan waaye jumaa ji doon it jumaa ji yéeme ndax xam ma suñu boroom dafa nangul eh, Sëriñ Tuubaa mhm. bi mu nekkee fële ci Maayomba mhm. ba euh, def fa jàkkaam yooyu nga xam ne ay bant la la sampoon. Mhm. Euh, euh, commandant bu doy waar. jàkkee Porokhane mi woog daal di koy falang. Mhm. ba sëñ Tuubaa am lu ci lu ko metti lool. ba sëriñ yëlli moomu yëlli sëy yëlli sëy di <laughs> xulóog tubaab bi ba timis mhm. sëñ tubaab bi muy wax إن عبادي ليس لك عليم سلطان خسيد جون خم مي أي سمين الله عند جيوال دفعني نفع لغير الله فيما يمبا ما ساء قلبي وأعلى الجنب خمني بيا خم تني سن يلي نيونا سنغال سن جبالك أو سن محمد لم يجوب دعنا نقدم وان كتب أبا نحن بيم كحالة سخلم جين نشلول وابني سن بدفن كو آه، سما جاك جي نكلا دمي سما جاك جوجا هم يدفعوا يوخ لكنك بيم سن تبان كو دعنا ربكم من بكونا بسورة waaw nga xam ne comme sooroor yi mi ngi fàttali ñaari guddi yi ndakaaru yi ida zakartu dalika al mabita wa dalika al amira wa thubuta taarat ila al jihaati bil armaahi nafsi walakin dabba anni al maahi kon loolu moo tontu coono yi nga xamante ni sëriñ Tuubaa am na ko muy jumaa ji nga xamante ni mooy jumaay Masaalikul Jinaan waaye Poroxaan it gis nga nam demee nga xam ne fu sori la woon fu isolé nga xamante ni kenn yaakaaru fu woon sax jaamu fa yàlla waaye gis nga yàlla ci euh, coobareem mm-hmm. ni mu fa yóbbu Mamour Anta Sall yi ba ko tedd kooku des fa mm-hmm. tey nag ñu defal ko fa jumaa joo xamante ni kenn musta gis euh, ju mel noonu mm-hmm. euh, nga xamante ni yéeme na kon loolu yëpp wane na ni ndam la loo xamante Euh, yoonu murit am na ko te sëñ Tuba indi li nga xam ne loolu kon li muy tekk rek mhm. euh, sëriñ Modou Mbaye Samb mhm. mooy ñun ñi nga xam ne dañoo wax ni dañoo gëm sëñ Tuba mhm. yaakaar ko topp ko kon na am ma lu ñuy jàngal foofu mooy kon ndekete kuy fonk julli ñun ñoo ko war a gën a fonk waaye kuy fonk jumaa it ñoo ko gën a fonk am na loo xamante ne xaw ma seetlu nga comme déet mooy yoonu murit jumaa juñ def dafay rëy benn waaye dafay rafet nga xam ne loolu sëñ Tuba suñ borom moo ko may tey ji nga xamante ni mooy xasira boobu nga xamante ni mi ngi ko tënkee rabbana axrajna min hadihi alqaryati zalimi ahluha dafa dem ba ci biir mu wax ne wajal bihi masjidi rahba suñ borom maa ngi lay ñaan jàkka ju ma amati rek na yaatu mhm. <laughs> xamante ni comme moo tax jàkka jun tabax rek day day rëy waaye tamit dafay rafet mhm. kon loolu mu xaddima la woon rek mhm. ci waxtaan bi nga xamante ne moom lañ def muy introduction pour dugg nag ci tomb bi nga xamante ne moom lañ war a tàmbalee woon jërëjëf mu xaddima bi rafet na lool waaye tey boo dee seet yëlli say keroog ba nga xamante ni bu bu quartier gi maaj sëriñ biy julli bu ñuy liqaam muy nodd bu demee ba nga xamante ñu ngi liit sëriñ bi bunyi ñuy bu ñuy maaj muy julli mhm. bu ñuy liit muy nodd bu ñuy muy mu taxaw borom 46 mhm. soldats la tasaare 46 militaires mooy une section nah. ah diggante ñaari jumaa yi 46 kilomètres la. <laughs> loolu de yéeme na jumaay Njaaréem ak jumaay Tuuba. jumaay Tuuba 46 kilomètres la. màggal gi yàggatul. Hmm. buñ ca àggee. Hmm. kilomètre bu ne nag léegi soldat dafay taxaw ni la bu mu fi yàqoo. <laughs> kon gis nga ni yàlla fayee sëñ Tuuba ci ci ci ci ci mbir moomu la. bi ci des nga xamante ni. <laughs> yaa ngi ko wax mu am solo lool. Hmm. muy euh, Ndakaaru. ku ne xool na ni avenue Cheikh Ahmadou Bamba. bañ ko koy tuddee commerçant yee fi newoon rek ak carte carte yi waaye sëriñ bi luñ ko tudd mu am njëriñ mm-hmm. Cheikh Ahmadul Bachir radiallahu anhu dafa wax mm-hmm. kër gu may tabax dama koy tuddee kër sëñ Touba ñu ko lu tax muy dafa bari jom faaw mu ñëw defaral ko boppam <laughs> kon gis nga ni nga xamante ni noonu la ko yàlla fayee ci jumaa yi ak yeneen yoo xamante ni mu ngi noonu daal kon nag euh, ñu ma laaj la nag atte juma naka la nga xamante ni nag la ko lislaam andee mm-hmm. euh, jërëjëf sëriñ Modou Mbaye Samb la wax ni euh, jumaa ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam njëkk a julli mi ngi koy julli ci dëkk boo ñëwee Quba nga xam ne ku dem aji euh, danoon la ko wan nga xam ne fa la ko njëkk a ci jamono bi nga xamante ne nag euh, dafay euh, dem nag di gàddaay nga xam ne julli moom farataan nañ ko nag bi nga xamante ni dafa nekk nag ci madinatul ci makkatal mukarrama mooy bi mu rajaaree rek subhaanallazi asra bi abdihi laylan ba mu jeex bi mu eggee suñ borom nag ci sidratul muntaha ci la ko jox nag li nga xamante ni mooy julli juróom ak ya ci Euh, mu mu xaaj nag juróom nga xamante ni euh, mooy julli suba ak euh, tisbaar ak tàkkusaan ak timis ak gée mhm. ci biir julli yooyu nag mu am ci lu ñu tuddee ak salaatul wusta mhm. nga xam ne mooy julli gu digg doomu gi mhm. suñu boroom da ko lëm ci biir julli yi ni ni mu defee ñaan gi nga xamante ni képp koo xamante ni dàkk nga Euh, waxtu woo bañaante suñu borom nanga ko da koo nëbb waaye itam laylatul qadri naka noonu salaatul wusta am ñu ne mooy suba am ñu ne mooy tàkkusaan waaye nag ci biir julli yooyu itam mu seppi ci nag ak julli boo xamante ni moom mooy euh, salaatul jumaa mooy julli àjjuma daal di koy def nag mu nekk nag lu war nga xamante ni farata la ci képp koo xamante ni amoo ngant nga xamante ni dañ indi ay xadis yi nga xamante ni moo koy tegtale uhuh. waaye nag mu def ko nag ci bi gën ci bis muy yemul jumaa waaye nag mu def ko nag ci jamonoy tisbar nga xamantene li lay wan ni waajiba la suñ borom doo xam ne yaa ayuha alladina amanu ida nuudiya lissalaati min yowmil jumaati fasaw ila llahi wa darul bayaa mooy yéen ñi gëm yàlla saa bu ngeen déggee ak woote mu jëm ci julli àjjuma na ngeen bàyyi lépp dem na wuy ji julli gi bàyyi li nga xamante ni moo di jënd ak jaay nga xamante ni aay boobu ne sootul jumaa wane na ni kon lu war la kon atteb jumaa julit moy dafa don lo xamanteni farata la dafa da ko war fekanteni amul ngànt motax tax yonent bi salaa salaam bi mu dikkee mom diko leral ci hadisi dafa wax ni aljumuatu xaqun waajibun ala kulli muslimin illa arbaatun abdun mamlukun aw imraatun aw sabiyun Eh, aw maridum mhm. nee na eh, li nga xamante ni mooy àjjuma mhm. dafa doon loo xamante ni lu war la mhm. dafa wax ni xaqun waajibun kon képp koo xamante ni amul ngànt rek bu waxtu wi jotee dafa war a dem julli ji jumaa waaye nee na ba mu des na ñeent mu ne mooy koo xamante ni jaam la bu ñu moom mhm. nga xamante li tax sax mun a abdun mamluun ko mhm. mamluukun mhm. mooy koo xamante ni kenn goreelu xam nga ni dana nekk jaam ba yàgg ñu goreel ko waaye koo xamante dafa ne ci biir bu mu jaam gi ndax jamono yooyu dafa amoon kooku waru ko comme moom tis baaram rek lay julli waaye keneen ki des mooy jigéen nga xam ne sax nañ ci dellusiwaat ci surut yi jigéen jumaa waru ko waaye firiwul ni nag Euh, bu demee juma day am bàkkaar wala bu demee amul julli mm-hmm. euh, bu demee dana am dana am euh, tuyaaba dana am julli waaye nag day coobareew rek mm-hmm. waaye waru ko mm-hmm. kon loolu jigéen tam ñu xam ko baax de sa ci dikkaa sax ci melokaan yi nga xamante ne noonu lañ war a mel waaye ki ko ñetteel nag mooy xale bu ndaw bu majooregul loo xam ne nekkagul mu kàllaf mm-hmm. nga xamante ne mu kàllaf moom leeral nañ ko ba tàyyi bu dee ci ay at fukki at ak juróom-ñett euh, bu fekkente ne nii nag ci ay mandarga la mm-hmm. euh, bu dee ci góor ku mm-hmm. gis euh, karawi naq wala mu jekki am sikkim wala karawi poqataan wala mu gént bu dee nag ci jigéen nag koo xam dafa am borom kër jékki-jékki ëmb donte sa eggagul ci baax waaye yooyu day faral di am wala boobu mu gis baax wala mu gis ay karawi naq ak yooyu nga xam moom laa waxoon ci góor bu boobaa da da koy war donte sax am na douze mm-hmm. mu am treize ans sax mm-hmm. góor ñi sax ma ñoomoon tam bu ñu amee douze ans dañuy gént mm-hmm. loolu euh, kon ñu kooku mooy mu kàllax waaye ku eggul foofu nag jumaa moom waru la waaye nag euh, ba tey rek xale bi mën nañ di ko yóbbu ngir tàmbal ko li nga xamante ni mooy juma bu fekkente ne du fa du fa du fa yàq wala mu di fa coow bi nga xamante ne moo ko ñeenteel nag euh, mooy ku wopp koo xamante ni dafa feebar yonent bi loolu foofu la yem ci xadis bi waaye su ñëwee ci charte yi am na ñeneen sax ñoo xamante ni euh, tudd nañ leen euh, dees na ko weer foofu kon daal euh, sëriñ Modou mbay Samb tomb bu njëkk bi bu buñ ko dee résumé mooy juma lu war la ci ab jullit boo xamante ni amul ngànt yooyu nga xamante ni moom la ñu wax bu àjjuma jotee rek dafa war a dem julli ji incha allah bu ñëwee ci charte yi foofu noonu dana gën a leer. jërëjëf euh, Cheikh Abdoul Khadir jiili kon jumaa ngoog di farata joo xamante ni loolu nga wax ni ñoom rekk lañ ko exempté. muy xale bu ndaw. walla jigéen. walla koo xamante ni dañ ko moom. muy jaam walla koo xamante ni dafa feebar. waaye bu fekkente ni yàlla daa dogal na yow. Hmm. nga nekk mukallaf hmm. ñu nodd. lan nga war a def bàyyi lépp Cheikh Abdul Khoudous moom maam Thierno Birahim nee na sëñ Touba na ko ah, su waxtu yu jotee lu dul waxtu yu baaxul loo def rek te du julli hmm. baaxul kon naka la nu mën a nekk ci Dakar wala ci beneen dëkk hmm. ñu nodd juma hmm. nodd day dib na ci njaareem fekk sëñ bi yor baraada da koo xalam baraada bi ñu teg wàccul yéegul ba nga xamante ni nodd gi daanu na hmm. sëriñ bi jóg wuti barab bi hmm. julli ba noppi del si téye baraada bi kon xam nga ni kon ah, moom gis nga fi mu bàyyi woon waxtu wi hmm. kon nag sama bokki julli ji sama bokki taalibe yi may dégg yépp bu ñu demee ba midi ndax juma sax. Ah. yo bisu ajjuma boo demee Makka Madina biladul arab kenn du ko liggéey. ndax mooy feetu jullit. feetu jullit comme nag ñun am ñu ngi ci boole leen lu dul loolu. Hmm. kon buñ dee ba euh, ba ba midi. Hmm. Mm, wala sawaal une heure. Hmm. nan ba lépp. yow mi mécanicien nag. yow moom da war a sangu ba set. sol yëre yi yu da nga ñëw ci teggin yi incha allah ak ñeneen <laughs> kon ñu waajal ko bu baax a baax ndax jumaa lu ñuy waajal la ma wax la ni la imam de la Mecque hmm. am na at moo xamante ni dem na Makka mais moom c'est un menuisier ébéniste Abdou Aziz Ben Salah menuisier ébéniste la bu ñu noddee rek mu defaru sol sultaanam ñoo julli delluwaat ci liggéey bi donc waa noonu la université bi voilà mu nga noonu kon gis nga ni nga xamante ni noonu la taxawee waaw léegi nag kon nañ ñëw ci xikma bi nga xamante ni moo taxaw ci juma waaw acce macha allah nga xam ne kon kon juma mi ngi noonu waajib la mm-hmm. waaye xikma bi mm-hmm. am ni boo ko déggee ci wàllu arab mooy mooy li tax suñ borom def ko. ama suñ borom lu mu def rek. am na lu tax am na lu tax waaw li tax nag mu def ko nag. xikma bi. moom ci la ñuy ñëw mu am solo lool nga xamante ne dafa doon tomb boo xamante ne sax jullit ñu bari. dañ ko war a bàyyi xel. ndax li tax sax mu wax da ngay gis ni xikma bi tax suñu borom def ko. da ngay gis nit ñi dañ bàyyiwuñ ko xel. xam nga julli juróom. moom farata la. waaye nag euh, loolu ñu salaatul jamaa mm-hmm. muy julli mbooloo mm-hmm. moom dafa doon loo xamante ni ngëneel la mm-hmm. euh, yonte bi wax ni julli mbooloo ëpp na tuyaabay julli kenn ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar ba nga xamante ne ni foofu sax da cee def ruxsa mm-hmm. oyofal boo xam ne yéeme na mm-hmm. xam nga bu dee ci euh, jamaa ci arab mm-hmm. ngi tàmbalee ci ñett dangay ngay wax mufrat wax musannan wax jamaa da wax kenn def ñaar wax ñaar muy duel waaye nag def def mbooloo waaye bu dee ci julli nag su ngeen matee ñaar rek mbooloo am na tey boo doon julli ànd ak sa soxna rek wala nga ànd ak sa benn doom euh, am ngeen yoolu euh, mbooloo kon loolu loolu suñ borom def na ci li nga xamante ni moo di yërmande yërmande ba effectivement su ko defee na li tax nag xikma bi nekk ci mu euh, euh, def àjjuma mm-hmm. da ngay da koy tàmbalee nag ci jàkka parce mm-hmm. que fi mu nekk nii jàkka mm-hmm. suñ borom mënoon na rek ne fu neex waaye rek mu mu jullee fa ci këram ak yooyu loolu boo ko defee di am julli ndax yonte bi bokk na ci juróom benn yi mu wax ni man rek la ko suñ boroom defal ci yonant yi mm-hmm. bokk na ci mooy wa ju'ilatil ardu mm-hmm. masjidan wa taxuran mm-hmm. nee na suuf si yëpp suñ boroom daf moo koo defal mu nekk jàkk nekk ni fi ñu toog nii bu julli jotee rek mën nañoo laal suñuy sajaada daal di julli waaye yonant yi jiitu woon ak seeni nit faw ci euh, jaamukaay yàlla ba rek maabat ba fa la ñuy dem jaamoo fa yàlla ngir mu baax waaye jàkk nag euh, dafa am solo lool ndax euh, dañ fay daje Euh, juróomi yoon. Mhm. ñu di ko def nag ci xay bi quartier bi. Mhm. nga xamante ni damay génn sama kër. yow nga mhm. génn sa kër keneen génn ñu ñëw daje. bu ko defee buñ gisantee foofu nag saafonte. loolu ay tuyaaba yu rëy da cee ne. waaye dafa amaat beneen mbir mu ci ne. moo di xamante gi. amaat beneen mbir mu ci ne. moo di kenn ku ne xam sa morom ci lim ne. mooy moo ñu yóbbee nag ñu mën a dimbalante. nga xamante ni ku ñàkk di ko xam. ku feebar amul lu mu fajoo di ko xam. ku am ngénte wala mu am leneen. Euh, di nga ko xam. mën ko mhm. cee jàppale. Mhm. su ko defee nag bu ñu ko defee semaine bi nag ba mu jeex ajjuma nag mooy ñëw. Mhm. su ko defee ajjuma jooju buy ñëw ci ngeen li sa des na gën a tas. Euh, jàkka yi ko wër yëpp. dañ leen di tëj. ndax loolu mooy sunna yonante bi. ndax gis nga jàkka yi sax waruñoo. jéego yooyu yenn jéego yooyu mhm. nga xam ni euh, Touba moom boo demee day gis jàkka ju ne mhm. day soreek moroom ja mhm. nga xam ni mën nga ko def ni kilomètre wala lu topp def ko daal noo xamante ni nit ki dana dox ab diir nga xam ni bu kee di euh, li euh, xutba ka ca des sax du ko dégg sàpp itam duñ taqaloo loolu li ko waral nag mooy tund wa ñoom ñooy ñëw daje foofu su ko defee nag ña daaw li gisee nag ci semaine bi yëpp ñëw nag gise nag ci li nga xamante ne nag mooy ay bis bi muy mm-hmm. muy àjjuma mm-hmm. su ko defee nag euh, ma bi ci nekkaat ba tey mm-hmm. moo di euh, xutba bi nga xam ni li xew nag ci euh, semaine bi yëpp ilimaan ji moo tax dañu wax ni ilimaan ji dafa war a doon mu saqaf mhm. ku am xam-xam mhm. ku am culture mhm. bañ a bañ a doon ko xam ne day barkeelu nii rek waaye day dag day jàng ba xam moo tax sax fii nii bu ñu doon tàll ilimaan kon kenn du ko xëccoo ndax xam-xam bi nga war a am euh, bari bariwul daal ñu koy am nga xamante ni xutba bi sax li ci gën mooy nga def ko ci actualité liy xew ci dëkk bi comme mbënd mi ñuy xew ak wala mbas meeg wala yu xew daal yoo xamante ni bu nit ki ñëwee dana mën a jariñu ci li nga xamante ni moom ngay wax waaye euh, li ko jiitu nag moo di euh, delloo ñëpp ci yàlla nga xam da nga ko yóbbee sant yàlla waaye nag euh, xupp nit ñi waar leen su ko defee day mel ne rek batterie boo xamante ne dafa biddoon nga chargé ko waaw rechargé ko ba mu fees bu ko defee mu yóbbuloo ko mm-hmm. semaine bi yëpp moo tax sa yonent bi salaa salaam dafa wax ni ajjuma ba ajjuma dafay kafaara ay bakkaar. Mhm. su fekkente nit ki tet na. Mhm. bakkaar yu mag yi. Mhm. nga xamante ni kon xikma boobu daal. bokk na ci li tax euh, suñu borom euh, def àjjuma pour ni jullit ñi di dajale. di dajaloo di xamante di dimbalante waaye nag di déglu nag imam bi nag mu di leen orienté. leen teg na ci yoon nga xamante ne dafay doon yóbbal ay bis bi yëpp nga xam ne bu ñu bu ñu ay bis boobu yëpp dañuy nekk ci lu wóor bu ñu dellu siwaatee mu daal di sofaat foofu daal di wéyal kon loolu mooy xikma bi nga xamante ni moo tax suñu borom farataal li nga xamante ni mooy jumaa ah Cheikh Abdoul Khadir defe naa ni nit ñi dégg nañ ko nag kon nag daje bi nga xamante ni dañoo war a daje ci biir jullit yi muy yowmal jumha hmm. yéen ñi ko dégg mooy le jour du rassemblement. bis bi ñuy daje <laughs> ndax yow mun a aruba la léegi nag bi bi yàlla yónnee yonante bi nag ñuy julli àjjuma ci lañ soppi tur yi tudde ko yowmal jumha. yowmal jumha mooy bisu daje te xam nga al al al jamaa rahma. Ah, daje yërmande la waaw ah, ah, waaw yërmande jooju nag ci li ngay xamee. sa mbokk ci li mu ne kenn ku ne mën a échangeante. Mm, mm. su ko defee ñu mën a bàyyi xel. li nga xamante ni mooy mooy warteef yi mm, mm. suñ digganteeg suñu borom kon nag léegi Cheikh Abdoul Khadir ginnaaw hikma bi nag dafay laaj nag ngëneelu juma waaw mm, ngëneelu juma ngëneelu ajjuma ajjuma mm-hmm. mu doon nag ngëneel lu rëy rëy nga mm-hmm. xamante ni boo ko seetloo eh, ci suñu réew mi ñu dëkkee mm-hmm. dafa mel ne jullit ñi bàyyi wuñ ko xel xam nga fi ma koy tàmbalee moo di eh, wax dëgg yàlla eh, ajjuma dafa waroon doon bisu noppalu ci jullit ñi ndax euh, yi ci ne su su ma ko leeralee di nga ko xam mm-hmm. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu ko tàmbalee wax nga ko sànq mm-hmm. mooy euh, dafa amoon ñoo xam dañ ko doon woor mm-hmm. bi mu leen gisee ñu di ko woor mu ne leen bu leen ko woor di ko dàppetoo maanaam ajjuma bu ne rek nga woor ndax seen bisu feet la yonent bi ci boppam moo ko wax ci làmmiñam nga xam ni kon ndekete mooy bis bi nga xamante ni ci lañ war a noppalu def ko suñu bisu feet leen li nga xamante da ci aju mooy jaamu dafa dafa sakkan dafa bari mhm. nga xamante ni ki ko defee ni mu waree du ko mën a booleeg di xëy fajateel dem di di di liggéeyi mhm. nga xam ne ngëneel li mi ngi tàmbalee ci rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni eh, àjjuma mooy bis bi gën ci li eh, bis bi ci li jant di tiim mhm. nga xamante ne daan mooy eh, bis bi gën ci bis yëpp maanaam bis yi juróom-ñaari bis la li ko tàmbalee ci dibeer muy dimanche ba ci samedi àjjuma nag moom moo nekk Eh, juróom benneelu fan mooy bis bi gën ci bis yi waaye ngëneel yooyu sax da koy lim dafa wax ni ci la suñu borom bind yonent yàlla aadama ci la ko dugal ci àjjana ci la ko génne eh, waaye nag eh, ci la faatu moom yonent yàlla aadama mu ne nag saa du taxaw mukk dara du àjjuma ci lay taxaw kon àjjuma bisu àjjuma ci la àdduna di tukki moo tax sax wax na ni saa boo xamante ni bii dugg nañ ci guddi àjjuma mm-hmm. nee na Euh, mbindeef yëpp dañuy tiit di féer féeri mhm. nee na ba mu des ak saqalaani mhm. mooy ñaari ndij ñi bopp noonu lañ koy firee muy nit ak jinne <laughs> waaw nee na ñoom ñoo ko dul yéegal seen yaram mhm. waaye rab yëpp dañuy tiit defe ni euh, daal balaa jant bee so suñu borom dana tukkal àdduna bu ñu demee nag ba àjjuma nag ba jant bi so ñu dugg ci guddi samedi ci la ñuy am ak féex ak féex effectivement nga xam ni kon ngëneel lu rëy mi ngi ci waaye euh, dafa am ngëneel loo xamante yonent bi salaa salaam da ko wax na bis la boo xamante ni bii day leen baril ci man lu ngeen di euh, julli mhm. ndax nee na julli ci bis yëpp baax na waaye julli ci man bisu àjjuma mhm. mooy bi mhm. ndax da cee am sax lum ci gàll nee képp koo xamante ni su àjjuma bari nga lay julli ci man man maa la war lu ramb la man sama bopp am na ramm yi dafa bari dafa bari da nga xam ne alxuraan dana ramm wàll yi dinañ ramm malaaka yi dinañ ramm way jur sax dana ramm doom doom dana ramm way juram soxna dana ramm borom kër borom këram dana ramm soxnaam bari na daal sarax sax dana ramm nit waaye nee na man su boobaa man ci sama bopp maa lay rammul sama bopp ak moom yonante bi ni mu toll xam ne mooy awalu shafi wa mu shafa kon loolu ngëneel la lu rëy rëy rëy boo seetee sa sëñ Tuubaa mu xaddamatul xidma bi mu ko defee ni ñu ko séddalee boo ñëwee ba ci xarfu miim mhm. moo ci gën a gudd mhm. mooy dajeeg bisu àjjuma mhm. nga xamante ni kon euh, ngëneel yu rëy da ci ne waaye mu amaan nag euh, lu mu ci wax nee na am na ñaan goo xamante nii suñ borom da koo dëxañ ci bisu àjjuma mun a ñaan la goo xamante ni képp koo xamante ni daje nga ak moom soo ñaanee suñ borom dana ko nangu foofu nag borom xam-xam yi dañ cee wuute ñenn ñi nee naan bu guddi gi tàbbee rek muy guddi àjjuma nga xamante ni mu nooy alxames nii bu jant bi sowee nee am ñoo xam ne dañoo wax ni déedéet mooy bu ilimaan di ñëwee ba def xutba diggante ñaari xutba yi mm-hmm. am na sa xamante neenam buy yéeg minbar bi la mm-hmm. am na ñoo xamantene na dañ wax ni nak buñu jullé juma ba noppi fofu ngay tok di ñaan am nak ñoo xamantene ne dañoo wax ni takusan la bam ko démé demee Cheikh Abdoul Khadir cheikh ahmed Tidiane Cherif mom gannaaw mom takusan la wax gannaaw julli salaatul asr gannaaw julli takusan mom lool la wax ba kéro jant bi di sox nga xamante kon kon suñu borom lëm na ko ci biir mu doon na ngeenel lo xamante lu reey la doomu aadama bu ne Euh, jullit bu ne rawatina war na ko bàyyi xel léegi nag loolu may wax na ci ngëneelu àjjuma mhm. ci laa bëgg ñëw ci mhm. réew mi mhm. niñ ko umpulee ak niñ koy dunde xam nga bis mi ngi tàmbalee ci bu jant bi sowee euh, maanaam ndax guddi mooy jiitu bëccëg firiwul ni bëccëg bi tàmbali na waaye euh, lenn la ci bëccëg bi mu nekk nii bu buñ jullee timis rek wala bu ñuy nodd rek dugg nañ ca bis boobu ñu dëgmat kon guddi àjjuma dafa doon guddi gu mag màgg mm-hmm. goo xamante ne boo demee ci masaalikul jinaan sëñ Tuubaa dafa wax ni sip nañ ci ab julli sax mm-hmm. mu euh, nelaw ko ba fajar mm-hmm. maanaam faawaram mu def ci ay jaamu yàlla nga gis na sëriñ Moodu su fekkente ne jullit bi da koo bëgg a dundal li ko yonent bi wax nga xamante ni nii am na ci ni moom duñ tëdd ci lal euh, dañ koy dundal ci ay naafila ak jàng alxuraan ak zikkar ak jàng ay xasaayit xam ne Sénégal loolu euh, aada la fi di ajo day gis ñu takk rajo yi di ba euh, fajar mm. su ko defee nga daal julli fajar nga xam ne bis bi yépp nag ngëneel la yoor yoor beeg mm-hmm. yooyu mm-hmm. léegi na nga war a nag waajal nag juma nga xamante ne sax bu buñ ñëwee ci teggi ni mm-hmm. des na ko leeral ak ya ci aju war koo defee ni nga ko war a defee ndax loolu dina mën a ànd ak nga dem na liggéey ni nga ko war a liggéey gannaaw jumaa ji sax dangay gis ñoo xamante ne buñ jullee ba pare euh, dañuy ferfer yi daanaka sax duñu duñu duñu duñu mën a def istiqraar dañuy daal di daw rek jëm ca liggéey ba ndax 3 heures la ñu war a dugg te buñ tardé mën na leen a indil ay yëf moo tax nag fii ñu toog nag nga xam ne dañuy ñaan ñi nekk ensemble ak yooyu fexe ba nga xamante ne bisu àjjuma moom dañ koy defal jullit ñi. Mhm. muy doon seen bisu noppalu. Mhm. bu dee dimanche nag moom. Mhm. keneen koo xamante ne aju na ci beneen diine. moom mën naa toog waaye ñu bañ a téye jullit ñi. ñu dem liggéey te seen bisu noppalu. moom ñu def ko bisu àjjuma ndax ngëneel li. ci ne dafa rëy. lool lool moom bëggoon nañ koo lancer. fi waaw xam nga sheikh Abdoul Khadir ñun am nañu mbégte lool. ndax euh, yomal juma. di yomal baraka. di bis bu tedd boo xamante ni. Euh, yàlla jagleel ko jullit yi ñetti feet moo am. waaw euh, euh, jullit ajjuma la am. waaw hmm. am gaaw. gaaw waaw. chrétien am dimanche. dimanche la demee waaw. ñoom nag ñi ngi hmm. sàmm seeni bis. Hmm. ñun jullit yi nga xamante ni nag. ñoo war bu ajjuma jotee ñu xam ne mooy suñu feet ñu war koo waajal nag loolu nag ñun moom la ñu perdre de vue <laughs> bu baax sax te Serigne Touba doo dem mukk Touba nga gis ko ubbi ajjuma déedéet mm. feet lay doon mm. ndax loolu mooy sunna kon gis nga ñetti feet yi nag ñun mm. dañ koo bombardé moo tax gars ko VSD waaw vendredi samedi dimanche te pourtant vendredi jullit yi ñoo ko moom mën cee préparé ah. mën cee mën koo waajal cré euh, yahud samedi bi. Mm. Euh, chrétiens yi moom. dimanche léegi nag kon cheikh bi mm. ngëneeli ajjuma nag. Ah, waaw waaw Oh, ñëw nañ ci te teggin yi waaw. waaw teggin yi nag moo am yow am yow. léegi nag bu ko defee sëriñ Modou Mbaye Samb mm-hmm. loolu nga ci dolli. Mm-hmm. mu am solo lool xam nga jullit ñi. Mm-hmm. ñooy majorité bi fii. nga xamante ne ñoo ñoo ci ëpp ak sariya bi. nga xamante ne dañ waxoon démocratie moom fu ñi euh, ëpp euh, féete rek. lañ bëgg loolu lañ war a def. nga xam ne kon loolu waroon war nañ koo def bu baax. mooy tax liñ bëgg a def ci àjjuma. ñu def ko dana gën a leer sax ci euh, teggin yi. su ko defee nag eh, teggi ni juma. Mhm. Eh, dafa bari xam naa mhm. dafa am rek yoo xamante ni eh, dañ ko ci tënk. Mhm. fi muy tàmbalee nag moo de al irtisaal mooy sangu. dafa am xeetu sangu boo xamante ni danga koy def ngir juma ji rek. nga xam ni da nga koy sangoo naan ñi nga xamante ni noonu la ñuy sangoo farata. am ko xam ni ñuy sangoo farata donte sa am na. ay euh, tuuti rek yoo xamante ne dañ ko ci leeral waaye bu ñu bëggee rek ñi ñuy déglu ñëpp xam li ñuy wax mooy da ngay sangu rek sangaayal ajjuma sangaayal ajjuma moom moom ngay yéene nag mm-hmm. da sangu sangaayal ajjuma waaye nag du mën a euh, yóbbu li nga xamante nii mooy eh, janaaba boo doon mm-hmm. sangu sangu janaaba moom nga yéene mm-hmm. waaye sangu eh, àjjuma nag moom boo ko yéenee mm-hmm. tey faw tam da ngay jàpp tam maanaam tam du doy moom rek saa nga jàpp ñi nañ ko xamee noonu baax a baax waaye tam dafa am tam lu koy yàq maanaam yi nga xamante ne day yàq di eh, di yàq njàpp yooyu moom dañ koo jéllale waaye lii yoo xamante ne da koy yàq yu bokkul ak yooyu léeg-léeg nit woo la ne la ndax su ma xëyee suba gi mën naa euh, sangu yéene ci sangu ajjuma euh, mhm. ba ajjuma jot ma dem julli ji ma ne ko mhm. déedéet ndax doomu aadama ni ko yàlla binde mhm. euh, loolu du mën a nekk ndax yi ko yàq moo di tey ku sangu woon bono boo lekkee rek yàqu na soo naanee rek yàqu na soo tuuree ndox yàqu na bu fekkente ni njàpp li toj na tamit yàqu na kon loolu kon wane na ni kon faw rek da nga koy jokkale ak julli gi maanaam da ngay sangu ba set rek daal di jël sa sajaada daal di daal di wuti juma daal di wuti juma loolu mu aju woon ci sangu gi mhm. waaye nag boo sangoo ba noppi nag mhm. euh, dafa bëgg nga sañse mhm. yaa bani aadama xudu zinatakum inda kulli masjidin yàlla dafa wàcc alxuraan ne yéen euh, nit ñi mu ngi ko sootul araf euh, saa bu ngeen di dem ci sama néeg bi di jàkka wala juma da ngeen sañse dama loolu day mel ne sa nit ñi duñ ko bàyyi xel waxi suñ boroom la su ko defee yëre yi ngay soltam yonte bi da koo joxoñ mhm. nee na mën ngaa sol yére yu ne mhm. yu set mhm. waaye li ci gën na mooy bu weex bu weex ay yére bu weex nag mooy sunna yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci juma bu dee korite ak tabaski moom nee na mën nga sol beneen couleur waaye na doon bu bees mooy sunnaam waaye bu dee nag jumaa nag moom na na doon bu weex léegi li nga xamante moo ci euh, topp ba tey ci teggin yooyu mooy dafay bëgg nga xeeñ na xet gu neex buggul Euh, nga dem ci nit ñi. ndax mhm. nit ñi fu ñuy daje. Mhm. Euh, léeg-léeg day xaw a doy waar moo tax dafa bëgg. Mhm. ñuy laal aytara. muy gët. gët bokk na ci ñett yi mu gën a bëgg. moom ci boppam sa yàlla da koo defaloon. Euh, moom ñaqam sax. day xeeñ gët ga gën a neex. wallaay wallaay wallaay Seydina Aïcha ne da ko nettali bu ñu nekkee jamonoy tàngoor. ba mu tëdd nii. tàngoor bi jàpp ko ba mu kii neen dañuy ñëw sax di ko taatan noonu mhm. di ko di ko diw day day mel ne euh, misk waaw moom noonu noonu la meloon waaye terewul nag mhm. da ko doon jëfandikoo mhm. waaye nag euh, bokk na ci ba tayit booy dem foofu bañ a euh, lekk li ñu tuddee basal wala sawm mooy soble rek ak laaj ak laaj waaw yonent bi da koo bañoon foofu li ñu ciy leeral nag mooy bu dee moom ci jëmmam moom daaw ko jëfandikoo ndax dafa dafa dafa wax ni anam ra un unaja nee na man nit laa koo xamante ne dañuy déyaale ak man mm-hmm. ndax nee na malaaka yi ni nit di loroo ci xet gu naqari noonu la ñuy loroo ci xet gu naqari mm-hmm. ata nee na bu ñuy déyante moom dañ koy jege mm-hmm. moo ci loolu sax ngay xam ne kon nit dafa war a fonk jëmm waaye fonk tam mhm. gémmiñam di socc ba set mhm. nga dem na sa wax ni law laa an ashuqa ala ummati mhm. la amartuhum bi siwaaki maa kulli sala waaw nee na fekkonte ne bañu woon sonal sama xeet yi kon naa leen digal ñuy socc saa bu ñuy julli xam ne saa bu julli jotee rek xam nga euh, dañuy wax naan da borosu ñetti yoon waaye boo toppoon yonante bi moom juróomi yoon la koy doon nga xam ni kon loolu jullit bu ne warul bàyyi ay bañam sàggane ko daal soble wala mu lekk li nga xamante ni mooy laaj kooku juma wàcc na ko amul droit dem ci juma xoolal loolu rek kon na nga dikk na li nga junjoon léegi mooy Sénégal doo xam sax ban dëkk lañ ne soo ñëwee nii ci juma ji da ngay gis ñoo xamante ni dañuy jugee fa ñuy liggéeyee rek. Mhm. ñëw. Mhm. li ci gën a yéeme sax mooy xeeti liggéey moo am waaye ci am xeeti liggéey yoo xam ne nag. Mhm. dëppoowul ak sol tani ba nga fa jógee. di ñëw ci jumaa ci jumaa nga xam ne lu demee ni mécanicien. xam ne huile beeg. ak ya cay tax ak yooyu yëpp. dañuy dañuy taq nag ba yéeme. nga xamante ni buñ dend yow soo solee yére wax moom taxul ñuy wax. moom dañuy yàq sa yére. te itam tenue boo xamante ni euh, da nga koy sol bis bu ne. da mhm. lay wóor ni sobe moom am na ci. Mhm. kon euh, da ngay bu fekkente ni da ngay dem juma. Mhm. wax dëgg yàlla na la jaral. nga jël yére def ko ci saak. wala nga def ko ci mbuus. soo demee ba waxtu wi jot. nga daal di dem waaj. ndax tey jii rek bu fekkonte ni da ngaa jëmoon ci. nitu àdduna yii rek. yii rek su la su la su la tey jii président bu la woon euh, palais. Mhm. doo fa demee satani boobu. déedéet mukk bu ministre yi nii rek. wala mhm. député rek. wala mhm. commerçant boo am yaakaar nga ci moom mu jox la xaalis. boo fa doon dem di nga ko waajal. waxuma laa nag yàlla ak ni mu toll. di dem na ci néegam bi nga xamante ne anna al masaajida lillaahi falaa foofu dañ faa war a euh, sañse waxuma la sa jëmm yàlla ji waaye sa nawle ya nga fay fekk. war ngaa mel melokaan boo xamante Euh, doo leen tooñ mm-hmm. waaye itam doo leen euh, yóbbee loo xamante ne daal mm-hmm. da yàq seen juma mm-hmm. moo tax nag moo xam menuisier bi la moo xam daal ku mu mën a doon ci ñi nga xamante ni nii dañuy euh, liggéey liggéey yoo xamante ni day ànd ak seen ten yi di taq waaye waxuma la sax loolu waaye sol ay yére yu yiw tamit nga xamante ni nii wax dëgg yàlla boo dee dem di wujji suñu borom war ngaa tànn nag yére yi gën a rafet mhm. te am na sax loo xamante ni ñun ñëpp seetlu nañ ko dund ak col col ka taxul mu mu mu jafe nag mhm. loo am rek mën nga ci am dëgg yàlla yow kay yaay seet bu gën a cher ak yooyu <laughs> waaye waax bii nii dégg naa sa mètre six cent la jar xaw ma sax wala matu ko sax mhm. mën nga cee wut yoo xamante ni ñaari yére bañat euh, ñaw ko ngir àjjuma rek ngir àjjuma bu àjjuma jotee nga daal di euh, bokk na ci tamit di tudd yàlla lu bari nga xamante ne ni euh, saa boo demee ni dangay ngay euh, tudd yàlla waaye bokk na ci ba tey nga xamante ni foofu lañ ciy duggee sax eh, ci euh, leeral ci lu am solo ñoo xamante ne seen juma yàqu na ba tey te te te te yéguñu ko. Mm-hmm. moo di gannaaw bi nga xamante ni bi waaj nga noonu ma waxee. Mm-hmm. ba ñëw ba toog. Mm-hmm. su ilimaan ji moom ñëwagul. mën nga ko la nuyu. nga fay ko ku ñëw tam mën nga ni ko toogeel nii. Mhm. yooyu yëpp mën naa ne. Mhm. mën nga yore tam sa kaamil alxuraan di jàng wala sa xasida mhm. mën nga yore sa kurus. Eh, di wér rek yooyu bu la neexee tam nga toogee foo xamante ni. taxul mu mel ni nga ko bëggee nga déplacé wu dem feneen toog fa yooyu yëpp mën naa ne waaye bu àll ilimaan gi dikkee wax asalaamaaleykum ba yëg ci min bar bi moom jeex na moom lépp loo xamante ni nii eh, def nga ko rek sa juma yàqu na mhm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni euh, bu euh, ilimaan di ñëwee ba toog ba ñu nodd nodd ko mujj gi mhm. ba ba mu jël na xutbe ba tàmbalee wax mhm. dafa wax ni dee leen ko xool xool bi ñu koy xool nii dafay attirer sa attention xam nga nit ki buy wax nga nga di ko dégg nii bokk la boo ko dee jàkk di ko xool li muy wax da day day day day day tax yow nga gën koo jàpp. gën koo bàyyi xel. Mm-hmm. moom mii wax it da koy sawarloo. Mm-hmm. day xam ni ñii may waxal li may. wax may dégg waa am am am ma solo ci ñoom. foofu sax dañ ciy leeral ni. Mm-hmm. ñaar rakk yooyu ñuy def. maanaam boo ñëwee nuyu jumaa ji taxiyatul masjid. te boo dafa bokk ci teggini jumaa ak jàkka. soo duggee rek. da ngay dugal sa tànku ndijoor ndijoor allahumma inni asaluko min rahmatik booy génne allahumma inni asaluko min fadlik boo dugalee sa tànku ndijoor mhm. da ngay daal di ñëw nag daal di kàbbar mhm. julli ñaar mhm. rakka yéene ci li nga xamante ne ni moo di nuyu jàkka ji tahiyatul masjid bu loolu jàllee na mën nga naafila la soob waaye sax dañuy bañ na mu bari lool lool lool boo jullee ñaar rek moom baax na mën mën nga toog ndax li ko waral mooy tashwiis la ñuy bañ mm-hmm. maanaam di déranger ña fa ne mm-hmm. am na ñu xër ñoo xamante ne buñ boo bàyyee noonu rek mm-hmm. day day doy waar léegi nag bu ilimaan di ñëwee ba tàmbalee xob ba ci ngir mii nag laa wax ngir imaam Malik moom boo boo tardee ba ñëw bëggul nga ngay la foofu ndax teel a ñëw gi tam nañ ci wax tuuti soog di ñëw foofu yonte bi sallallahu dafa wax benn xadis nee na dee leen teel a ñëw ci jumaa ji mhm. waxul nag nga ñëw fa ay euh, suba wala nga di fa xer yi ndax boo ko leerul doy na waar wala nga ñëw sa midi mhm. na nga na nga ñëw rek ci jamonoy jumaa mhm. nga xamante ni nii bu la wóoree ni euh, bu ñu noddee fa nga euh, jóge soriwul te itam sa natt nga ko boo xam ne fi nga bëgg a toog ci jumaa ji di nga ko toog waxtu yooyu rek baax na nee na boo teelee ñëw dina la bindal tuyaabay jileem nga xamante ni mu toll boo ko jëloon toj ko saraxe ko tuyaaba jooju moom lañu lay bindal mm-hmm. boo ñëwee ci waxtu wi ci topp tuyaabay nag yëkk mm-hmm. boo ñëwee ci waxtu wi ca topp tuyaabay kuy mm-hmm. boo ñëwee ci waxtu wi ca topp tuyaabay bay ci boo ñëwee ci waxtu wi ca topp tuyaabay ginaar boo ñëwee ci waxtu wi ca topp tuyaa bay nen <laughs> nga xam ne kon fekkoon lu ñuy xëccoo la wax dëgg yàlla kon da nga teel a ñëw <laughs> kon kon teel a ñëw bi tam dafa ah. baax nee tamit bu ñuy ñëw tam ci jumaa ji dafa am ay malaaka yërmande yu taxaw ci bunt bi nee na yore seeni registre di bind mhm. soo ñëwee rek ñu ne sëriñ Mouhamadou sëriñ Modou Mbaye Samb de ñëw na mhm. daal di bind turam mhm. bu bu keneen ñëwee ñu def noonu di ko def di ko def nee na bu ilimaan di excès rek dañuy daal di tëj dañ koy tëj jeex na du yow sa tur du ca nga xamante ni kon teel a ñëw gi dafa baax na solo lool lool moo tax ngir imaam Maalik nag dafa wax ni bu ilimaan ji taxawee rek naka bu donte da ngaa tàdd sa ñëw rek toog. Mm-hmm. Mm-hmm. dañuy indi nag xadis boo yonent bi waxoon ni. Mm-hmm. Euh, benn waay ñëw mu ne ko jugal nga naafila moom moo daggal boppam sax. xutba euh, xutba bi mais liñ ci jublu woon waa ji dafa ñàkkoon. te nag mu am nag ay Richard yu newoon foofu mu gis bëggoon bu ñu ko gisee gis ni mu mel ñu sarax moo tax sax loolu tam borom alal itam dañoo bëgg ñuy am seetlu suñ gisee koo xamante ni doy na waar ñu jàppale ko jàkkatam loolu rôlam la waaw mi ngoog léegi nag euh, fi ma koy jeexale ci xutba bi mhm. moo di yonte bi nee na bu ilimaa ji tàmbalee képp koo xamante ne nii wax nga mhm. sa jumaa yàqu na mhm. waaw moom na ko nit ñi dégg bu baax yàlla xam bi ñu ko yóbbi sax jumaa ji bi ñuy lex bi muy xutba euh, sëriñ Bachiru ñi ngi wax nga xamante ne loolu moom am euh, daganul daganul waaw beneen bi ci desit moo di nee na fekkante ni nit ki dafay wax wala muy def naka sa du noonu nee na boo ko ishaara junj ko ne ko nii. Mhm. wala nga am noo def nee na mhm. sa jumaa yàqoon. Mhm. nga xam ne yow lu mën a xew yow neen muut rek. bul yàq sa juma waaye tam bul nangu kenn ko ko yàq sa juma loolu loolu lañ bëggoon wax ci euh, teggi nii nga xam ne bari na rek waaye dañ koy tënk noonu rek euh, Cheikh Abdoul Khadir yaakaar naa ni jullit boo xamante ni dañoo wax ni ajjuma jot na te muy seydul ayam hmm. ñu war a waajal jumaa ji nga war a jóg sangu hmm. war a sol lu rafet hmm. war a xëeñ gétt dox wuti jumaa ji hmm. waaye war ngaa góor góorgóorlu hmm. nga teel a ñëw waaye waxuñu huit heures wala hmm. <laughs> waxuñu it ngay nelaw ci biir jumaa ji déedéet boo agsee nag nga def taayatu masjid nga nuyu jumaa ji toog yor sa bi bu imaam ne asalaamaaleykum xamal ni xutba yi mat naa leeral xutba tabaski ak korite après bu ilimaan sëlmalee <laughs> ah, la koy def ah, mais xutba juma ah, avant que ñuy julli lañ koy lañ def mais après ñuy julli lañ koy def bi avant ñuy julli lañ koy def waaye nag jàppal ni nag li tax ñu ci insister mm. xutba boobu daa bokk ci ñaar rakka yi koy mottali kon il faut que ñun ñëpp ñu ànd gi xool gi ngay xool imam mm. mu di la muy muy muy muy muy muy muy muy xutba dafay am solo lool ndax d'abord di di nga prêter attention ndax auditoire lay déglu kon loolu am solo lool mm-hmm. kon nag ma fàttali sama mbokki juddi ji sama mbokki taribi yi mm-hmm. yaa ngi bàyyi ko boucherie rek daal di wuti jumaa ji kàbbar déedéet mm-hmm. yaa ngi bàyyi ko ci atelier mécanicien bi déedéet yaa ngi ñëwit nag sa gémmiñ wax dëgg yàlla nag eh, xéewal yi nag yaatu na waaye nag Euh, dend ak nit. Hmm. mu sëgg nga sëgg. Hmm. daanaka day bëgg a teel a siggi. Euh, ndax euh, xet xetu gémmiñ gi. Hmm. loolu lu mat a bàyyi xel la. kon soble ak laaj ni ko yonent bi waxee. lu am solo la. waaye am na lu ko gën a garaaw. ndax am na ñoo xamante ni fi ñu toll nii. rek yàlla rek a xam donc il faut góor góorgóorlu ci loolu. suñu biir te insisté ci. bi ci des it. dafa am lu doy waar lu xew Ndakaaru. moo di nit ki day ñëw rek ci jumaa ji dàkk genn ker rek. Ah, ah. mu toog fa. mais amoo juma amoo tisbaar ndox ndox kii sàppe dafa war a jokkaloo war a jokkaloo fekk amul lu demee ni ndox mu fa dox uh-huh. wala boo lu demee ni tali uh-huh. uh, loo xam ngànt la daal uh-huh. waaye yow sa coobare rek nga ñëw sàppe si uh, jàkk ji feesagul li ci sës ni nga ñëw taxaw fële juma amoo ko dafa war a dafa yooyu yëpp nag Cheikh Abdoul Khadir di ko fàttali dafa am solo hmm. kon nag gaa ñi juma jaa gi noonu hmm. alhaji Mbacke yu fay représentant xarit général de Mouride ci ni nga xamante ni noonu la ñu indee les mesures barrières waaye lii lu Cheikh ci li wax nag mooy les mesure bambéennes <laughs> nga xamante ni kenn ku ne da war a góor góorgóorlu <laughs> xam ni jumaa ji <laughs> war na caa dem hmm. war naa taxaw taxawaay bu rafet ci jumaa ji hmm. kon ñu ngi nuyu nag imaam Cheikh Ahmadou Bachir Lo sëriñ Khadim Lo hmm. Cheikh sëriñ euh, Cheikh Gueye ñoom ñëpp ndax seen taxawaay rafet na hmm. waaye bayaan yi ñu di ko déglu dafa am solo lool ndax dana tax nit ki am fàttaliku sëñ jili léeg kon nag bi ci des nag muy charte yi nag charte jumaa waaw loolu dafa mat a xam xam naa comme waxtu mi ngi dem damay boole ñaari rek آه، شروط وجوبها ام شروط صحتها نعم. موي شرط يغا مانتاني موي تخ مو وار ام شرط يغا موي تخ نا مو وير مو وير واي ني تخ نا مو وار نا موم لا ني نجيكه موي شروط وجوب الجمعه اه لي تخ نا مو وير موي يوي ما دون جوني يونتي واخان كو تي حديث فوا الاسلام دا فاي ام maanaam ki nga xamante ni moom la jumaa war mooy jullit. mooy jullit. waaw gis nit ñi dem ci jàkka ji rek nga def ko tourisme. Mm-hmm. ñëw dugg fa rek. di kii mm-hmm. Mm-hmm. moom moom doo ci am dara waru la. waaw xam nga loolu àdduna dafa doy waar. ñi nga xamante ne yaa ngi ko doon dégg sax ci Allemagne ak France. ñooñu xamante ne ay iliman yu jigéen la moom ne leen wóor ni moom. amuñu juma islam am fa def bopp yi ne di di rek lañ doon di xutba ak yooyu góor ñi ne ci ginnaaw. loolu gis nga l'islam day ñàkk ay yëfam. waaw kon beneen bi ci topp nii. moo di warul ab jaam moom moo ci topp jaam moom jumaa waru ko abdul mamluk uh-huh. waaye euh, jigéen uh-huh. waru ko foofu li ma li ci doon wax na mooy uh-huh. da ngay gis jigéen di Sénégal koy fonk lool waaye nag waru leen képp ko xamante na dem yaa ngi fay demit loolu laa bëggoon a wax na nga fexe nag euh, sàmmoonteeg charte yi charte yi mooy na nga sol lu yiw te itam boo ñëwee itam na nga nekk ca gannaaw mhm. te bu fa yëkkati itam sa baat mhm. te itam bu fa euh, xeeñoo gët mhm. euh, goo xamante ne nii euh, dafay attiré góor ñi dama yonte bi daa xam ne xayru sufuufi rijaali awwaluha wa xayru sufuufi nisaai axiruha wa charru sufuufi rijaali axiruha wa charru sufuufi nisaai awaluha yonte bi nee na sàppe yi ci gën ci góor ñi mooy bi ci kanam ndekete loo gën ne ci kanam rek moo gën waaye waxuñu nag ngay jéggi nit ñi wala ngay buuxante yëpp da nga koy teg ci xel rek su mënee nekk nga def ko su mënta nekk fi nga yem rek nga xam ne foofu la yàlla dogal mm-hmm. moom nag mooy mottali sa yéene mm-hmm. nee na nag bu dee nag euh, jigéen mm-hmm. nee na sàppe bi gën ci moom mooy bana ca gannaaw nekkata lu mu gën a ne ca ginnaaw moo gën ci moom léegi nag bu dee góor na sàpp bi bi gën a yees moom mooy ba na ci ginnaaw bu dee jigéen nag ca kanam dafa mel ne sa masaalik euh, ñoom utal nañ leen sax foo xam ne euh, ñoom rek ñoo fay ne waaye loolu it dafa mat xel ndax fañ leen wutal jóoriñ taxaw na ko lool. alaji mbàkk yu fay yàlla na ko yàlla fay. amiin amiin waaye nag jigéen. Hmm. dafa am col. col waaw na gudd. waaw na yaatu. na tal loolu mooy hmm. taxaw mooy colub jigéen. Hmm, ñaareel ba it. Euh, gis nga euh, ku majeur. da ngaa war di musóoru musóoru égal waa waaye boppam neen sëñ tubaa nee na bala ngaa dee di nga dof wala nga jur dof waaw loolu am boppam neen ku koy def xam nga sax bu ñu waxee jur dof ñu defee ñu bari dañuy defee ne mooy ñi taxawaale ci bedd yi uh-huh. waaye da gis eh, nit ki jëf jëfi eh, joo xam da lay wóor ni jëfi la uh-huh. nga xamante ni daal eh, te ak xeeti yeneen xeeti manqué manqué gis nga borom bopp dëgg ku ko bëgg a jur uh-huh. da ngay muur sa bopp waaw loolu loolu bokk na ci charte yi beneen bi ci des warul xale xale bu ndaw it waru ko waaye xon naa la. Mhm. mën nañ di ko yóbbu. Mhm. ndax mu miin ko ngir mu miin. très bien waaye nag bokk na ci ba tey it euh, ko am dafa wopp. Mm-hmm. ku feebar ku moo tax sax bi mbas mi ñëwee mm-hmm. coow yi bari woon ci waaye ku feebar lañ wax mm-hmm. waaye ku feebaragul <laughs> moom moom waxuñu la waxuñu ko dëgg <laughs> ba tey it loolu ñu de al iqaama mooy nag da ngay dëkk musaafir ko musaafir waru ko donte sax am na ci na ay ci wax ndax dañu wax ne bu ëppee ñeenti fan waaye yonte bi am na tukki boo xam ne euh, ñaar fukki fan ak ñaar def na ko ci àll bi moom mi ngi am yéene yi delluwaat rek sëñ ci waa gis nga ko lam nekk Jurbel mhm. waaye boobu moom mi ngi xeexee tubaab yi wane na tey tey tey tey mhm. su ma amoon lii ma gënal Tuubaa lay fanaani mhm. kon daal musaafir moom euh, juma waru ko kon yooyu bokk lépp bu ñëwee nday suratu euh, sixati euh, juma jumaa mooy nag faw day na ci ab dëkk warul warul ne daal Euh, ci loo ñu de xarif wala baadiya mhm. dëkk boo xamante ne dëkk kaw boo xam ne kenn newu fa mhm. bariwul ay nit mhm. ñoom waru leen ndax dañ wax ni euh, faw rek euh, day mat fukki nit ak ñaar mooy li ci gën a néew sax ci ngir imaam Maalik am na sax ñu wax ñeen fukki nit ndax loo nga doon wax noonu yonante bi lu jiitu aay bii di wàcc wa idaa raw tijaaratan allaw infaddu ilayhaa wa tarakuuka qaa'iman boobu da daan julli ba noppi soog di ba waaye nag bi mu nekkee ci biir julli yi caravane bi jóge Cham léegi ñu tëgg noonu lañ daan def marchandise bi ñëw na ci biir julli gi am ñu bàyyi julli gi bi yonante bi wëlbati ko nee naan fukki nit ak ñaar la la fa fekk te ñooñu sax buñ la ko limalee dafa yee mooy ñi sësoon ci moom rek léegi nag ci la wëlbati nag yëf yi mm-hmm. euh, kon kon loolu waaye bokk na ci ba tey mm-hmm. euh, fu ñu tabax masjid mm-hmm. ñu koo def ci nandu fay fa wala ñu jékki-jékki toog ba yàgg rek man ak yow ñu ne nañu dajale ni ñu julli fii jumaa fu ñuy déterminer lay doon fu ñu tabax nga xam ne dañuy nañ dem Masalik <laughs> wala nañ dem Poroxaan wala nañ dem Jumaay Tuuba nga xam ne daal fu ñu xam la <laughs> loolu bokk na ci ci charte yi bokk na ci ba tey it <laughs> ci li koy wéral mooy xutba gi ndax boo ñëwee rek nag euh, julli rek te amul xutba jumaa ji moom baaxut faaw dañuy xutba yooyu daal bokk na ci euh, charte yi waaw kon nag euh, Cheikh Abdoul Khadir ginnaaw attey juma mat na xitma bi mat na ngëneel yi mat na teggin yi mat na charte yi mat na léegi daal danaa ubbi nag téléphone bi ndax première partie bi <laughs> wax dëgg yàlla kon mat na léegi damay ñaan ubbi téléphone bi ci 88 628 08 18 su ko defee ku bëgg dugg nag mu dugg ci première partie bi waaye mu bañ a génn lii nga xamante ni thème bi ñu ne muy juma kon ubbi naa ligne bi ci 88 628 08 18 di sant bu baax lii nga xamante ni mooy jumaa ji mm. nga wax ci bu baax ci àtte yi mm. wàcce wax nag ci ngëneel yi surtout waaye teggi ni nag mate ko sëkk hmm. ndax nag ab jullit laa war a xam ni ajjuma mooy bisam hmm. waaye ci ngëneel yi it sëriñ Tuubaa wax na ni hmm. juróom-ñaari faatiha juróom-ñaari xul wallaahu juróom-ñaari fal juróom-ñaari fallax juróom-ñaari naas ci digg ci boo sëlmalee bala ngaa bala ngaa def soppi soppi toogin yàlla da lay aar ba jumaa ji tëdd si itam da lay jéggal sa bàkkaar yëpp waaw noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi moom noonu la ko waxee sax ñu mm-hmm. ci xaddis boo xam ne moom noonu la ko nee na képp julli jumaa ba noppi. Mhm. te jataay bi soppiwoo sa toogaay. Mhm. jàng juróom-ñaari fatiha juróom-ñaari falax juróom-ñaari naasi. Mhm. Eh, ñaari ñetti kii yooyu neen suñu bon na la jéggal say bàkkaar. ba noppi aar la waaye bokk na ci ngëneel itam boo jugee sa kër. dox di dem. jéego boo def am nga mm-hmm. jaamu yàlla ñaar fukki at. Mm-hmm. xam nga loolu lu rëy la. lu rëy la moo tax sax ci la ñu wax ne sax ndekete ajjuma euh, mu ëpp doole laylatul xadri. Mm-hmm. waaye gis nga sëñ Tuubaa euh, ni mu ko da da koy lëkkale kon da am ajjuma. am laylatul xadr am laylatul xadr gënee lu rëy lay doon ndax li saa bu ñu koy def rek uhuh. day dëppoog àjjuma muy laylatul jumaa uhuh. kon gënee li daal boo ko dee lim duñu fi fi jóg bari waaw uhuh. waaye dara dàqul nag mooy ligne bi ku ci bëgg a jaar ki ngay jaar waaye nag ñu ma wax ni ba nga jógee sa kër di dem jumaa jéego boo séqi rek am nga jaamub yàlla ñaar fukki at moom la Cheikhul Khadim wax léegi nag nga seet kon ñaata jéego ngay dox ci dem <laughs> ak ci dikk taw feex weesuwul loolu mm, mm. kon nag Cheikh Abdoul Khadir mm. nga nee li jumaa ngi noonu léegi nag may ubbi ligne bi waxoon naa ko rek 88 628 08 18 première partie bi am na solo ndax mooy juma jullit bi war a bàyyi xel ni ajjuma mooy feetam mu war ko mën a taxawee mën a waajal jumaa ji mën a sangu mën a solu mën a suuru ñetti es yi sangu solu <laughs> suuru boo génnee nag xeeñ loo xamante ne dafay am solo lool koo dendal day yàkkamti dend ak yow ndax jamono ji nga xamante ni sax ñi ngi naan jamonoy mbas yi yiy wàlle dafa met sax ni boo boo sëggee daanaka am na luy génne ci sa gémmiñ ka nga sa ka nga dendal sax day bëgg a jóg loolu ahsanallah mina yàlla na ci yàlla musal 88 628 08 18 moo tax sa jëmmi jumaa ji ci boppam mm-hmm. moom dafa am teggin xam nga jëmmi ci ji jumaa ji ci boppam moo tax dañuy bëgg moom nay set yonte bi dafa tere woon koo xamante ni dafay tifli ma jamono yooyu sax amuloon karo yi ak yooyu waaye tere woon na sax ko fa leewi nii saywe xam nga mm-hmm. leewi euh, da ngay defee ni dara newu ci tere na tam ku fa watu mm-hmm. waa xam yooyu dafa doon yoo xamante ne tere na tam yi génn ci nit mhm. mu bañ di génn foofu mhm. am ne loo ci mën rek mhm. na ko def euh, tere woon na tamit ñu bañ a taqal foofu am ne lépp loo xamante ne day day taqal rek na nga euh, def ko ci jumaa ji nga xam euh, fi nga gën a fonk ci sa kër nga xamante ni bëggoo dara taq ci saa saa boo xëyee ñu ngi koy balee ka fomp ka yooyu boo ñëwee ci jumaa ji tam na nga def noonu moo tax ñu bëgg tam di fatal cuuraay xam fu mhm. nit yu bari di daje mhm. euh, léeg-léeg mu am nu mu mhm. demee moo tax faw ñu di ko am ñoom sax toll nañ ci euh, am doole yi day day génn ci poto yi ci poto yi xamante ni nii day da koy da koy waaw loolu la ñuy def Masaalikul Jinaan xamante ne nag ko ñi di ak loolu la ak it di ci sant nag xale yi nga xamante ne wax dëgg yàlla tey bu Njaay moo leen jiitee ànd ak Cheikh Kokki hmm. waxtu wu nekk dañuy buñ ne tey ci alxames yi rek hmm. ñu ngi tàmbalee raxas jumaa ji tàmbalee hmm. fomp tàmbalee fëgg yooyu it nag dina may ab julit wala taalibe Euh, murit ah. mu ñëw nag di participer ci lépp loo xamante ni dafa nekk nag ci wàllu euh, defar jumaa ji ah. kon nag loolu it baa ngi ci soññ nag taalibe yi ah. kenn ku ne boo indi sa barkeelu ndax laata naa loolu barakati ilaa bi tabaruki nit ki mënta am barke feek barkeeluwul kon kenn kuy ñëw nag na nga indaale sa hadiya soo ñëwee def ko fa ndax lépp loo xamante ne entretien la ñun ñi ñoo ko war a def wax dëgg nag sëñ bi tabaxal nañu juma julli ci ak entretenir juma ji ñun ñi ñun ñii la war muy yool bu rëy muy yool bu rëy nga wax noonu <laughs> mu nekk nii tabax bi moom mooy lii waaye yool bi day wéy mhm. fi mu nekk nii yonte bi mu waxee ni man euh, bana lillahi masjidan mhm. bana allahu lahu bihi qasran fil janna mhm. nee na képp xamante ne tabaxal nga yàlla ab néeg euh, nee nee na donte toll na sa tàggu picc xam nga loolu kenn nit mun xaju ci waaye waxin la lu mu tuuti tuuti nee na suñ borom dana ko tax tabaxal pale ci àjjana nga xamante ne nii loolu firiwul ni rek tabax bi pare na <laughs> kon loolu jeex na waaye euh, entretien bi ni nga ko waxee nii <laughs> euh, loo ci def rek <laughs> yaa ngi am ci yool boobu yàlla ci boppam moo bëgg ñu fonk ay yëfam fonk yëfam gis nga mak makkatal mu karma boo fa jullee benn rakk am nga téeméeri junni yool waaw bu fekkante ni euh, julli nga ko foofu ndax moo ne ca kaw day mel na rek day mel na foofu mooy yàlla boo ñëwee Madina yonent bi sallallahu moo wax nee na mhm. boo fi jullee benn rakka am nga junni am mhm. nga fee téeméeri junni fii mhm. junni boo demee baytul maqdis am nga juróomi téeméer nga xam ne kon noonu la daraja yi toll nga xamante ni kon daal euh, fi gën ci pàkki suuf yi mooy jàkka euh, loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la wax waaye neen fi gën a yées nag ci pàkki suuf yi mooy marché kon kon kon jàkka euh, dañ ko war a fonk bu baax boo fa dee dem di teewlu. Mhm. Euh, xam ni fii euh, fépp suñ borom moo ko moom waaye fii nag moom. Mhm. dañ ko koo jagleel. dañ ko koo jagleel nga xamante ni mën na mënees na cee dolli ko bu baax a baax. waaye nag mënees na cee wàññi tamit bu baax a baax. Mhm. ndax tey da ngay seet ni Cheikh Abdoul Khadir euh, jumaa ji di di Masaalikul Jinaan di jumaa Cheikhul Khadim. taxawaay bi nga xamante ni moom la ci ñu taxaw. léegi maa ngi fàttali les mesures barrières. Hmm. muy masques yi nga xamante ni dañ ko war a takk. macha allah nga xamante ni moom. Hmm. dañ di ci insisté ñu takk masques yi. Hmm. ñaareel ba ñu raxas loxo yi. ci gel yi. ñetteel ba. xanaa sax euh, soriato bi sax. waaye loolu. jamono jee ko indi ak ak mbas mi waaye doon na rafet nag ñun ñi nga xamante ni ñoo fa nekk nag ñu mën a waajal nag jumaa ji bu baax a baax a baax kenn ku nekk it xam ni hmm. boo joxee benn dërëm ci jumaa ji bu yàlla lay fay jumaa lay fay. ñun ñëpp ñu gën cee góorgóorlu. xam ni nag tey. ñun ñii ñoo war a bale ñoo war a buub tarbiya. mooy taagi mooy taxan raagi mooy root. baagi mooy buub yaagi mooy yenu <laughs> kon ñun ñëpp ñun taalibe yi. <laughs> ñun ñun la war a. daal Cheikh Abdou Khadir daal am na mbégte tey ci. fàttali gi nga xamante ni fàttali nga ko at tey jumaa. fàttali ko xitma juma. fàttali ko ngëneeli ajjuma. fàttali ko teggin yi. ak charte yi. léegi nag mbokk yi. Hmm. comme labyrinthe. Hmm. tomb boobu. ub nañu ko. Hmm. waaye nag fàttali konte mënta ñàkk. kon ma bëggoon nag tey. liñ naan xaaloo inna lillahi wa inna ilayhi rajihoon. jàmbaari lislaam ju bëgg diini. taxawaay taxawaay bu ma sëkk bëgg réewam. muy alhaji Ndaama Fall radiallahu taala anhu hmm. wàcc na liggéey hmm. alhaji Ndaama Fall mu hmm. nga dëkk Touba Fall Touba fan la ne Touba Fall boo demee ba ngay mexe tourné yaa nga jëm tableau bi Touba Fall ma bëggoon ñu indil ma alhaji Ndaama jëmm ji ku am jom ngi nii sëriñ ji li ku bëgg diine ngi nii da am ñooñ tarixa la topp waaye kii ma diine la ndax gàmmoom gi muy def Touba amul kenn ci kilifa diine yi. Hmm. ci Sénégal. te tuddeewu ko. nii la mel nag. Hmm. ci nekk doktooru jumaa yi. ak jàkka yi. waaye boo demee Touba hmm. ndax dëkk yëpp. mën nga ko tuddi sa barab nga tuddi ko Touba. waaye nag Alaaji Daama Fall. dëkk ba mu dëkk di Touba Fall. waaw Serigne Touba moo ni sëñ ma waaw boo demee na nga ma ko tuddeel Touba. est-ce que mboxeer la <laughs> waaye boo demee na nga ma ko tuddee Touba. est-ce que maam Alsad Fall. Hmm. ñoom ñëpp ñu ne fa. Hmm. sëñ Ousseynou ñoo ñu nga xamante ni liggéeyal nañ sëñ Touba. fekk nañ ko gànnaar. alaaji ma mii sagal na barab ba. maa ngi lay wax ni la. Hmm. defar na fa hôpital. yóbbu fa ay médecin ak i mm. sage-femme dee da fay ci alalam mm. defar fa jàkk mm. defar fa lépp waaye wëlbatiku nag tund wa lépp loo xamante ni xew dafa rek alaaji ndaama loxo nga fa boo demee ci kër yi diine yi démb tur yëpp daje nañ fa mm-hmm. kii mooy kii nga xamante ni. Ah. mooy Alaaji Ndaama Faal. yal na yàlla dolli leeram. waaye nag ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ah. ndax gàmmu jaral na ko lu ne. waaye kii daal moo daal ñaw yére yu rafet yi. Hmm. amul fu mu ko dugalul ci lislaam fépp ci kër yi diine yi ci Sénégal. dugal na fa ñaw yu rafet yi nga xamante ni. moom lay ñaw. waaye nag dem ba gis koo xamante ni. Hmm. Euh, dafa. na ma yàlla baal ci wax ji dafa wérul wéri di xel nga ñëwal ko jëri yu rafet alaaji Ndaama Fall mi def na ko kon koo xamante ni nag wax dëgg mm-hmm. tey uh, Mahmoudan mooy uh, xalifaam Moodu ak seeni rak ndax Alsaan Fall a ngi fi ak Ousseynou Fall ñoom ñëpp moo leen jàngal ñaw gis nga tey gis nga ni ñu yaroo ndax jàngal na la diine waaye jàngal na la jom kon Alaaji Daama Fall yàlla na yàlla taasuñ ci barke démb lañ ko doon ñaanal yóbbu nañ ko nag Touba Fall mm, mm. ca dëkku maamam boobale nga xamante ni Cheikh Massamba nag la mm. yaakaaroon ki nga xamante ni tey wax dëgg yàlla bi sëriñ Massamba mu jóge fi mu ànd ak sëriñ May ànd ak sëriñ ma moo Mahmoudan noonu la ànd ak njaboot gépp ànd ak sëriñ Modou Faty Khary noonu la demee bàyyiwul kenn wax dëgg yàlla kon Alaaji Ndaama Fall yàlla na yàlla yokk leeram gis nga tey nii la bëggoon ñu ñaanal ko ndax isi duwaa yan foofu maytan fil xubóor naka la wàcc liggéey rek jëwriñ woonu ni na ngeen ko wàcceel alquran ñu ñaanal ko ndax yàlla jéggal ko dolli leeram waaye taxawaayam a ngi nii Abdou Diouf président de la république da ko wax ni ko Euh, Alaaji Ndaama fal hmm. c'est un homme averti. ndax bëgg gi mu bëgg dëkkam. kon ki aime son pays. Hmm. Cheikhou Touré nee aime son pays produit. Hmm. waaw na dugg 88 628 08 18. ubbi woon ligne bi waaye daa mel Mm. ngëneeli jumaa yi moom tax na moom ma bëgg kenn ku ne xam ni <laughs> tey jii bi su éducation la ah, ak instruction waaw voilà ndax tey ki fi teew <laughs> dafa dafa indi lu am solo maa ngi lay fàttali di mm. jéego bi nga génne sa kër sol lu yiw xeeñoo lu neex war a julli juma jéego boo séqi mm. ñaar fukki ati jàmm yàlla guñ nangu moom la yàlla lay defal kon boo dee seet juma du leelatul xadara nekkee xayrun min alfi shahri junni weer waaye xoolal tey vingt ans yoo xamante ni yaa koy jaamu yàlla ñu nungul la ko ci benn jéego yaakaar naa ni kon euh, ñaata laylatul xadar ngay am kon gis nga sëñ Touba ni nga xamante ne noonu la ñu dimbalee waaye nag ku ne xam na ni tey euh, tabaaraka rabbun lii xadalaa da wax doo faqiiran xariban inda galwaa ba baa fa di bu ñuy maaj muy julli hmm. bu ñuy liit muy nodd hmm. bu ñuy rappel muy liqaam hmm. nekkal fa boroomam tey gis nga Atlantique géej gi. Hmm. bi demee ba waxtu yàlla wi jot dama lay wax ni la ndar. Hmm, hmm, yoor yoor la. Eh, waaw yoor yoor la yoor yoor la ñaari rakka yi. waaw yoor yoor la waaye la ci sëñ Tuubaa ji jàngale. mooy bi nga ko wooyee. kabbar bi mu kabbar ñaari saar yi gën a gudd ci alxuraan la jàng. suratu baqara 285 aaya. mi yetaani yoo xam sunu wa sama Ali Imran ñaar téeméeri ay muy hmm. quatre cent quatre vingt cinq ay musulman ba pare ni ana gone yi ko ma ci woo <laughs> ñu indi ko ñetti guddi ndakaaru dugal ko ci géej gi le 21 septembre kon nag waa ñetti guddi ndakaaru la sëriñ bi waxoon wax na ko alaji mbak yu fay ne nag bu mbooloo mi bari ndax fi waxtu yu toll waaye alaji mbak yu nee na leen jàkk ji yi nga xamante ni mooy jàkka ji ndaw ji nañ ci daje fedd li rek c'est euh, ni ñetti guddi ndakaaru gi ni euh, noonu it kuréelu géej gi hmm. ñu ngi sant bu baax ajaratu soodu xumma ak ñi mu ko àddal jàmbaar yooyu nga xamante ne wax dëgg yàlla duñ mm. tay duñ yokkat mm. léegi nag bu boobaa it mm. xam naa sëriñ bi wax na ni dana fa yeble waaye karaan karaan ñëw rek ay ñëw muy sëriñ Fallou imam ñu bañ a bu ñu jullee it daal di ah, dem xam ni ni mbooloo mi demee mooy moo waxtu bi demee moo mel noonu kon nag sëriñ jii di daal jàppandi tey jumaa ngook sëriñ jii di tey boo demee kër dëkk dëkk bee Cheikhul Khadim ne quarante huit jumaa mu nga fa téeméeri jumaa ak ñeent fukk ak juróom-ñett yoo xamante ne àgg nañu bu ajjuma jotee <laughs> limaam imaam bi daal di xutba ñu julli kooku yàlla defal na ko Cheikhul Khadim kon fee ca Touba waxuma jàkk yi de ndax boo waxee ne jumaa yi laa wax jàkka yi moom mën a su ko lim mais jumaa yi nga xamante ni dafa nekk ci Touba téeméer la ak ñeent fukk ak juróom-ñett ci waxtu wi may wax ak yow ak nag xoolal murit bu ne bëgg ngaa ah, tabax juma ndax lu tax ah. Ah. borom tabax bi tey waxoon ni yàlla hmm. sama tabax bi xam nga sëñ Tuubaa ñun lu munu lu munu wax rek nañ koy gëm xam nga lu tax ki toog ci mbaaru ngeer <laughs> gaynde di dàq mbaam àll ba mbaam àll mi làqu ci sa ginnaaw nga borom wax sama jumaa ji ni muy toll ak ni mu war a mel ñu dem ba teg ci suñu bët sone bu ci suuf si ma leen ñu war gëm <laughs> Cheikh Khadir mooy li nga xamante ni mooy mbir bi kon nag bokk yi ma bëgg ñu ñu gën a góorgóorlu ah, ah. da bàyyi xel nag juma xam ni bis yëpp hmm. jumaa ci gën guddi yëpp hmm. laytul xadara ci gën hmm. weer yëpp weeru koor ci gën waaye bu ñu demee ba nga xamante ni nag juma yi jàkk yi jumaa yéen leen yilif ndax léegi wax nga ko hmm. bu midi jotee rek jàkka yëpp tëj nañ leen ubbi jumaa yi waaye jumaa yeeg jàkk yi nag kaaba gaa seen kilifa waaw kaaba gi nag buñ ko seetee hmm. kon jumaa yëpp fa la jëm waaye da ngay seet bon boo nee benn rakka ci kaaba gi cent mille rakka ci jàkka judul kaaba gi benn rakka madina nekk junni waaye ka bindoon ni wajaliyal daariyakal madina barakatan wa kaabatan masona kooku mënuñu ko fay sama kër taxaw na <laughs> taxawaayu Madina Makka ak Madina waaye ñun ndax mën nañoo fay Sëñ Tuubaa ah, kon nag ma bëgg nag ñu ñëpp ah. ñu tënku hmm. xool suñu jëwriñ ji di Cheikh Mouhamadou Mountakha xool ko ci njàng mi xool ko ci liggéeyu Sëñ Tuubaa bi hmm, hmm. encore sëñ ji li boo gisee ma di la invité waat dama bëgg nag boo dil si waat ñu def ci ma ndax jumaa ji tey pare na waaye la ca des ñun ñoo ko yor ñu entretien waaye nag xoolal daara jee tey di 37 milliards moo tax Cheikh Mouhamadou Mountakha jumaa yi naan wax naa la ko. 1441 jumaay Poroxaan. 1442. institut Cheikhul Khadim. 37 milliards. mu am ca nu muy def. Mm-hmm. nee na am na ñoo xamante ne bu ñu xëyee. Mm-hmm. dañuy doxi seen soxla. waaye am na ci ñooñ seen soxla. mooy jumaa ji ak daari kaamil ñoom ñëpp sëriñ bee leen warul weer wu ne mu jox leen seen salaire ba pare yenuwaat nag beneen yen mooy daara jee ca poroxaan nga xamante cinq cent maam jaara nekk nañ fa moo leen amee seen lépp daanaka boo dee seet dépense bi quinze millions la par weer kon nag kii tey buñ doon audité islam wallaay daañu xam ni <laughs> jàmbaar a ngi nii ku ku tege ci yoon a ngi nii bi <laughs> la invité waaye dars bi nga jàngale muy juma hmm. léegi nag kon benn taalibe waxuma la benn jullit amatoo droit xëy xëy rek mm-hmm. fëkk sa mbubb wala rek daal jékki-jékki euh, sa ah, tenue ah, nga am nag moom dem jumaa ji déedéet mm-hmm. jumaa dañ koy waajal te ñun mm-hmm. taalibe yi yàlla moo dogal sëriñ bi lépp fàggul nanu ko kon nañ ci góorgóorlu bu baax noonu moom ci jëmmam moo yonent bi sa alayhi wasallam euh, bisu àjjuma ci la daan sañse mu nekk ni yooyu fitra boobu ñuy wax ci yonent yàlla Ibrahima am suñu borom da ko rafaataleel nga xam bokk na ci leewi say we mm-hmm. bokk na ci socc mm-hmm. bokk na ci eh, wàññi say naanu muy ji mm-hmm. bokk na ci jekkal sa sab sikkim eh, ba mu jeex fukki yëf la moom na ajjuma la ko daan def ajjuma daa nga xam ne daal ci la daan sañse xam ne loolu nag eh, jullit ñi dañoo war di ko roy foofu nga xam bi bu bisu ajjuma jotee ba ci cin yi sax ni ñu ko def nga xam ne dimanche dañuy soppi cin yi Sénégal di ko def ajjuma nga xamante ne dañuy de bu ñëwee xale yi xam ne bis bii bu spécial la yar yar ci xale yi lii li gën a garaw mooy li jullit bàyyi. waaw at mi. Mhm. atum jullit mooy tam xarit. tam mi ko waaw. nga naa di fekk nag. waaw te xale yëpp bu ñu leen doon. instruire ci ci tamxarit dañuy xam ne bii mooy jour de l'an mooy bis bi nga xamante ni. mooy bisu bisu Ashura. benn. ajjuma mooy sunu feet. ah. Mhm. gars yi ñoom seeni feet ñu ngi koy doxal ñun nag suñu feet nga bëgg daal di patam patam yi te fekk na doy na waar daal xam naa comme kilifa yaa ngi nii dégg daañu ko bàyyi xel bu baax a baax kon daal Cheikh Abdoul Khadir mm, mm. am nañ ci yow mbégte lool di sant bu baax a eh, baax am na li ñuy mottali ci jumaa ji mm-hmm. eh, daf ci am lañ ñu koy laaj lu bari mm. am na lee léeg nit mën na nekk ci ay mbir mm-hmm. eh, ci dul coobareem ba jumaa ji xaw ko raw tuuti mm-hmm. mu ñëw nag foofu ñaari yëf lañ ciy leeral mhm. su fekkente ne da ngaa ñëw fekk ilimaan ji julli benn rakk ba jàpp ay oomam mhm. ci ñaaral rakk bi boobu boo ko fekkee foofu mhm. moo am nga dara ci jumaa ji léegi bu noppee rek li ngay def mooy da ngay di indi benn rakk daal di taaye sëlmal nga xam ne am nga am nga jumaa daal waaye fekkente ne da ngaa ñëw ci ñaari rakk bi foofu laa koy tënk nag mooy fi mujj bu dafa siggi boo amatoo dara ci jumaa ji moom moom bu sëlmalee da ngay jóg sos ab julli. Mhm. julli ñeenti raak. Mhm. tisbaar tisbaar maanaam mën nga koo defee nag. Mhm. ca barab boobu juste bu tamit am nga ngànt tam. ba mënoo dem juma. Euh, saa boo bëggee julli tisbaar na nga bàyyi bañ julli ba. bañ ba sëlmal nga soog di nag julli yooyu ay sew sew la yoo xamante ni jullit bu ne. war na ko euh, a bàyyi xel. bi ci des it hmm. ma di leen ñaan nag. Hmm. bu ñu àggee ci jumaa ji nañ di topp sàppe yi. ba sàppe yi ndax ci la bokk waaye salaamaaleykum rek mm. nga dàkk genn ker. lal fa benn carton. Mm. toog fa bu ñu kàbbar. Mm. waaw bu courant coupé te ah, déggoo déggoo déggoo julli gi foo jëm. kon nag léegi il faut ñu góorgóorlu ci loolu. ndax benn dangay ñàkk jumaa ñàkk takk tisbaar te loolu warul ab julli julli bu nekk daal. war na góorgóorlu ci diineem. looy ñàkk bu ci diine. bokk kon nag taxawaay xam nga foofu nga xam sax noonu. Mm-hmm. ci ñàkk diine. Mm-hmm. yonent na képp koo xamante ni jumaa Euh, raw na la ñetti yoon yoo xam ne sa coobare la. mais mm-hmm. dañ lay bind ci zumratul munaafiqiin waaye ci naafeeq yi lañ lay bind. ci liste bi waaw ci liste bi képp koo xamante ni euh, juma ñetti juma yow yaa ko tey. Mhm. topp sa sago rek. neen mhm. neen neen neen dañ lay boole ci naafeeq yi. kon nag mu kon loolu nag képp la loolu laa xawla wala xóota waaw léegi liste bi nga xamante ni nag mooy liste jullit yi. mooy kuy waajal waxtu wi. Hmm. ca waxtu wa. julli jot nga julli ca waxtu wa. loolu dafay rafet lool hmm. rawatina nag. Hmm. juma kon nag bokk yi leçon bi nga xamante ni. moom laa àndal tey ak euh, Cheikh Abdoul Khadir Samb di fàttaliku nag Alaaji Serigne Samb way juram ndax sunu mag la woon man bi ma nekkee ci arme bi te ñu joxoon ma euh, le mess des officiers ak ordinaire at ma Sénégal jëkkee ñàkk mburu daf ne kuy ñàkk mburu yow doo ci bokk lépp mu andil ma ko ci camp bi bañ naan est-ce que man damaa luxus mburu bi <laughs> kon gis nga alaaji sëriñ sàmb waaye alaaji sëriñ sàmb nag mm. moom mii mm. ak daaray kaamil alaaji sëriñ sàmb ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kon nag gis nga ko kon mm. tey gaynde du jur xar kon Cheikh Abdoul Khadir yàlla na nga gudd fan yàlla na nga wér et surtout bële nga defeet nga xamante ne da fay def di yare di jàngale ku yaru moo mën a yare tey sëñ euh, sëñ Babacar Jaxate nee na na ngeen lu ci yar ab yaray tax ñu jël nit teg ko ca kaw ñàkk yaray tax ñu wàcce nit ci kaw di ko caw kon gis nga noonu nga xamante ni yaa ngi taxaw ci éducation instruction formation lu am solo la kon gaa ñi jumaa jaa ngi noonu di ñaan nag suba insha allahu nañu bàyyi xel les mesures barrières mm, mm. waaye dugal naa ci nag les mesures bambiennes <laughs> kenn ku nekk ñëw xam ne ñun suñu diggante ak sëñ tubaa mm. mooy juróom gëm wóolu doyloo yaakaar bëgg nun ay murit lanu kon dara lu sëriñ bi digle rek hmm. dañ caa war a taxaw ba mat sëkk nu góorgóorlu ba bu hmm. bu mu nu tere dara ndox loolu mooy hmm. ittiy murit saadix waaw bu lu mu nu digal noo nga ca waaye duñ tere dara di sant nag bu baax a baax mboolem taalibe yi ci ndakaaru gépp di wax nag ni leen ajjuma suba la incha allah bu ngeen ñëwee da nga nun fa fekk balla ñing ak Omar Faye ñoo nga fa kon nañ indaale addiye yi nga xamante dañ por Euh, entretien jumaa ji di sant ñëpp hmm. di gërëm ñëpp di wax nag ni tey daal suñu xol sedd na téléphone bi nag man maa ko brouillé <laughs> ndax ni nga xamante ni tey laa bëggoon <laughs> kenn ku ne xam lan mooy attey jumaa kenn ku xam lan mooy xitma jumaa kan mooy ngëneeli jumaa teggin yeeg yëpp ñu hmm. xam ko loolu dafay am solo hmm. lool kon nag Cheikh Abdou Khadir sant nañ la gërëm nañ la ngi lay ñaanal yàlla euh, daamar ji nga war na tama lakkum safaran tayiban nga dellu ci jàmm boroom borom defal la tawféex ñaan nag yàlla may la fanu gudd may la wér waaw yaakaar naa ni alxames boo bu bii di ñëw nag xam nga dañuy dugg xitma tey ñoo ngi dugg nag eh, bis bi nga xamante ni ci la suñu waaj demoon ci géej gi ah muy safarul xayri mooy séntu bu njëkk mu ngoog bii di ñëw bu dellusee ah, mooy séntu bu njëkk kon mu ngook te xam nga hmm. dafay neex hmm. ñeenti bis yi may wax ci ci aj at mi waaw tabaski la waaw ibrahima tamxarit hmm. yonent yi Euh, safar sëñ Tuuba gàmmu rasulullaay lu dul loolu rek koo gis ci bisu jàmm rek <laughs> lay yëngu kon nag ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaanal sunu jëwriñ nag yàlla may ko fanu gudd taxawaay bi rafet na loolu ku xool jumaa ji dugg ci biir rek a sedd ni mu koy def ak taxawaay bi nga xamante ne da koy matale loolu dafa am solo lool kon ñun ñëpp ñu gën ci góorgóorlu te di la ñaanal yàlla di la yóbbante nag nuyoo ci ki nga xamante ni hmm. mooy Serigne Alioune hmm. te di jëwriñu Lamp Fall ak ña fa nekk ñëpp sant neen xam ni murit ak morom ma mbuus ak mbuus la téeméeri mbuus hmm. xaj ci benn mbuus ñu waajal nag hmm. ñaari guddi ndakaaru hmm. nañ waajalit julli géej gi waaye nañ ko defee di nga xamante ni ah, noonu la ko sëriñ bi bëggee wajalit it gi loolu moom bu ah, soobee yàlla séntu bu njëkk ba ñu ni safara ngoog moom dana saf sam, ñu ngi sant yëpp di gërëm ñëpp kon sëriñ bi ñaanal ñu fekke ko waat ko nag ay yoon sant nañ la gërëm nañ la jërëjëf amin wax leen amin اللهم زدنا ولا واكرمنا تهنا سنا aju fa jazakum barke borom Tuuba jërëjëf ak sa